lan am amti leen buur ne lan am amti leen albirra mbaax te mooy di yool ak aljanna xataa tunfiqu ba te ngeen dundale eh, leen ci seeni alal bi ma tuxibuuna te la ngeen gën a bëgg de yàlla nee na mu ne du ngeen am mbaax te mbaax dëgg mooy am yool ak aljanna mbaax bi nga a foor nag mooy nga xam jëm yàlla ji loolu xal si nañ cee ñëw mu ne waaye amul leen njool ak mbaax lu dul ngeen dundale lenn si seen alal la ngeen gën a bëgg seen alal ngeen dundale ko de waaye waxul alal ga de mu du ngeen am aljanna lu dul ngeen dundale lenn si seeni alal ndax du du euh, li ngay jaxe rek moom ngay fekkee ëllëg de bi bi wàccee nag sababu nuzulam bi aaya bi wàccee nag abu talxata si sahaaba yonent bi sallallahu dafa amoon benn tool bu mag tool boo xam ne daanaka lépp a ngi ci tool boo xam ne tàndarmaa ngi ca biir tool ba tool boo am ne teen teen boo xam ne moo gën eh, teen boobu ndoxam moo gën a neex ci ndox yi teen yi Medina yëpp baaye bi wàccee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci julli ñi ah ba abu talxata déggee loolu mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne sama tool beeg ak la muy am ci meññet ak tàndarma ak lépp lu fa nekk ak neexaay ndox bi yëpp joxe naa ko ngir yàlla de ndax de naa borom bi wax ne dégg naa ci borom bi di wax ne mun lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbuuna moom noonu la defee ba joxe ba joxe te toola toola tàndaram ba de mooma bu taxata yonente nag ne eskay eskay baxin baxin mu ne ko loolu baax na lool li nga def noonu waaye jox ko sa jege ñaale rek jox ko say jegeñaale jox ko sa mbokk yi kon booy dundale balaa ngaa balaa ngaa laax di jaay na nga laax lekk maanaam na nga jox say mbokk ak ñi la jege ba sa sa sa yàlla wër sa gël ba nga xam ne ñoom ñi ñu ngi jot seeni cër boo dee teg keneen itam baax na nga soog cee teg keneen waaye di jégg di di nga gis ñoo war dimbal di leen jégg di dimbale ñeneen baax na naam waaye njëgañaale ñoo ci gën ñoo ci gën a ñoo ko ñoo ci gën a yeyoo de ci mbir moomu de moo tax bu talxata ba mu déggee bi ne yàlla nee na mu ne du ngeen am yor aljana lu dul ngeen duna leen seen alal moom mu jël toolu toolu tàndarma bi ak li nekk ca biir tool ba yëpp ak teen bi gënoon a neex ci teen mit ne nga xam ne ci toolam bi la nekk mu jël ko daal di ko jox joxe ko ci yoonu yàlla jox koy jege ñaaleem de noonu ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu séddale ko ci ay mbokkam Zeyd ibn Haarisa moom amoon na Eh, Zeynu ibnu ibnu Saabit maa ngi jaawale Zeydu ibnu Saabit moom it dafa amoon benn naaru góor boo xam ne bu rafetoon la bu magoon la daanaka moom it eh, moom moo moo naaru góoram boobu moo gënoon a mat moom la moom lu ci bëri moom lañ daan tukkee ba ko defee nag bi aaya bi wàccee Zeydi daal di ñëw moom it jël naaru góor bi bëgg koo jox yonent bi sallallahu alayhi ne ko. joxe naa jox naa sama naaru góor bi ngir yàlla li wax jox naa ko ngir yàlla ndax li mu wax lan tanaalul birra xattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna bu le euh, euh, euh, du ngeen am mbaax mukk lu dul joxe ngeen leen li ngeen gën a bëgg seen alal joxe naa ko de yonentu daal di jël loolu ne ko jox ko jox ko Usaama sa doom jox ko Usaama sa doom de ngir mu mu mu wëlbatiku moom Zayd ibnu Saabit daal di ko jox Usaama doomam de lan tanaalul birra ba tey Abdullah ibnu Omar moom it dafa nekkoon koo xam ne wala Omar ibnu Abdul Aziz Omar ibnu Abdul Aziz dafa amoon soxna soxna si nag am benn jéebéer jéebéer bi euh, Omar ibnu Abdul Aziz bëgg jéebéer bi mu topp soxna si si jéebéer pour mu may ko ko topp na ko ci ak diir mu bañ ah, Amr ibn Abdul Aziz nag moom ba ka ba ko yàlla falee ba ko yàlla wërsëgalee mu nekk buur jullit ni bañ fal ko ah jéebéer euh, soxna si daal di dem sang da defar jéebéer bi toppatoo ko ba mu rafet defar ko comme ni ñuy defaree gëttu ko tusngal ko defar ko daal ba mu njëkk mu daal di indi ko ci Amr ibn Abdul Aziz na ko kii jox naa la ko àddina tey ah war na ko waa may ma damay waxtaan su paree dinañ wax Amr ibn Abdul Aziz ba ko defee nag bañ bañ ba Omar bin Abdul Aziz ca waxtaanam ba mu daal di ko mu ñëw mu ne ko yow sa jébbal bi nga may jox ci naka nan nga ko amee mu ne ko jébbal bi maa ngi ko amee sama wàllu baay dama ko doon sama wàllu baay mu mu ne mu daal di laajte Omar bin Abdul Aziz gëstu ndaw si fu lu tax mu doon jébbal ñëw nekk di jaami jaborom ba ko defee nag mu gëstu ndekkate bàyyi ndaw soosu ñuy wax ne jaam la jébbal la. waaye ndaw soosu dafa ameeloon ak bor daa ameeloon ak dafa amee ameeloon bor bàyyi soxna Omar ibn Abdul Aziz bi amul lu ko fayee mu daal di ko joxe noonu ñu nangu ko ci moom loolu moo tax après nag ba nga xamee ne loolu xew na Omar ibn Abdul Aziz daal di jël ndaw si goreel ko defal ko li ñuy defal gor dimbale ko ba pare daal di wëlbatiku jo eh, eh, ba ba ba ko goreelee ba pare bu daal di wëlbatiku ba ma ne ko baanaa ngir yàlla de léegi nag bëgg naa la trop sama àddina yow laa ci gën a bëgg waaye lépp bàyyi naa la ko ngir yàlla de bàyyi naa la ngir yàlla rek nga am sa liberté ak bopp de moo tax mu ne moo loolu itam ci lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna dafa amoon benn saalixu tamit boo xam ne dafa ay eh, eh, dafa xëy benn bés rek bakkan bi noot ko ci bëggam yàpp ginaar moom nag bëggutoon boo xam ne bakkanam mu ngi koy noot ci loolu rek mu bëgg mu bëgg koo topp mu bëgg musul bëgg loolu ba nga xamee ne loolu xew na nag mu toog ñeent fukki fan di xeex ak bakkanam pour mun a fàttaloo bakkan bi yàpp ginaar googu bakkan bi di sàkku ci moom mu xeex yi fi sotti xam naa bakkan bi yëpp ko doole mu daal di ñëw ci soxna si wax ko soxna si mu ne ko man daal fan yii maa ngi jànkuwanteeg lu métti ak sama bakkan bi. ndax daf may bëgguloo yàpp ginaar te itam te man te te te man dama e, e, tere naa sama bopp yàpp ginaar ak li mel noonu boo ko defee nag ba e, soxna si na ko mun ne ko deet du del yàlla xanaa xam na loolu yàlla terewu la ko ndax yàlla dagana la yàpp ginaar te itam yomb na pour nga jënd ko ndax am nga loo ko jëndee léegi ni ñuy def kay dag may jox rek ma dem jënd jëndalil la ko su ma ñëwee su ma ko jëndee su ma ñëwee ma toggal ko ba mu baax jox la ko su ko defee mbir mi wàcc la de moo gën ngay teg sa moo gën muy nekk sa xel mi ñu nekk sa bakkat bi te itam te du ci gaaw a jógee de moom ko defee nag mu daal di jox soxna si mu dem marché daal dem nduggi ñëw togg gi ginaar gi ba mu baax ñëw taajal ko jëkkër ji ba mu ko taajalee jëkkër ji ni ko taajalee rek benn miskin daal di fëgg ñu ngi wër sàkku ndimbal pour lu lekk ah, fekk boobu kii ki nga xam ne bakkan bi nootoon na ko ci bëgg yàpp ginaar yi demee noonu moom ba mu déggee miskin bi di fëgg rek mu woo jabar ji mu ne ko jëlal jëlal jëlal palaati ginaar bi ak lenn ci biir yëpp nga jox ko miskin bi mu ne ko déet mu ne ko déet yow ak li nga sonnee ci mbiram ginaar gi ma fexe ba toggal la ko ba nga war koo lekk nga nga jox miskin bi moom koy xaaral ma defale lu ko gën li ko gën mooy xaaral ma jël dara lenn ci xaalis rek ma ma ma daal di ko jox ndax loolu xam naa xaalis bi lay gën a soxla di ma jox ko ko rek ah jëkkër ji na ko waaw tigi tigi loolu baax da moom ñëwee jëkkër ji bàyyi euh, lam lam la lam ñu soroon de moom it ba ñëwee euh, euh, ndaw si indi xaalis bi ba mu daal di indee xaalis bi ba mu indee xaalis bi nag jëkkër ji daal di boole xaalis bi ginaar gi yëpp dañ togg yëpp daal di ko sarax miskin bi mën mënu ko jëlal jox ko miskin bi loolu la bu nettali mu ne lan tanaalu amti leen albirra mbaax xataa tunfiqu ngeen dundale mimmaa tuhibbuuna te la ngeen gën a bëgg eh, lenn istena lan ngeen dundale ci la ngeen gën a bëgg de wa maa tunfiqu la dundale ngeen ko min shay'in ci lëf maanaam loolu lépp lu ngeen dundale nag fa inna allaha naka yàlla alimun aji xam la mu bii ci loolu de yàlla xam na li ngeen def te ëllëg incha allah dina leen ko fay de kullu taxaami kaana xillan li bani israila loolu ko wasal wàcc na ci yahudi mooy lan da dafa dañoo ñëwoon di dàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ñoom ñooy dàggi ñu ne ko waaw yow ñëw gis nañ la yaa ngi boole loo xam ne yaa ngi wax ne ci diine yonent yàlla a nga nekk te gis nañ la yaa ngi def loo xam ne yonent yàlla Ibrahima du ko daan def yaa ngi lekk yàpp gëlëm te yonent yàlla Ibrahima du daan lekk yàpp gëlëm te fekk te fekk du noonu de yonentu ne leen mu ne leen dama leen laaj te bu te bu leen leen leen bu leen fen wax leen dëgg gi rek su leen ko laajee na ngeen ma tontu mu ndax xamoon ngeen ne. E, yonent yàlla Ibrahima musta araamal dara loo xam ne yàlla daganal na ko ko yàlla daganal na ko ko ñu ne waaw mu ne ndax xamoon ngeen ne Yaquba seen maam dafa feebaroon feebar bu metti mu nisar nag ne bu ko yàlla wéralee ci feebar boobu dina bay bàyyi e, lim gën a bëgg ci ñam te loolu mooy yàpp gëlëm ak soowu gëlëm dootu ko naanati yàpp gëlëm ak soowu gëlëm moom dootu ko naanati loolu yonent yàlla yaqub moo ko ni soroon te yonent yàlla ibrahima euh, euh, fekkeewul loolu de ndax boobu yonent yàlla ibrahima jugee na fi ay xat isma euh, ismaila isxaqa mi ba bàyyi yaqub isxaqa mi bàyyi yaquba bi jugee na fi ay xat ngeen wëlbatiku bëgg ko takkal ibrahima lu ngeen wax xamu leen ci dara loolu mooy li nga xam ne mooy dañoo jël lenn li nga xam ne ibra yaqub moo ko tereel boppam ñu boole ko seen téere bi te fekk yoo nekku ci téere bi de mooy seen xeeti coppi googu ñuy def boole ci lu ci bokkul jël tawraat soppi ko soppee soppee ba ba nga xam ne lay cosaan la sax nekkatu ca wala bu ca nekkee itam lu néew la mu ne yonuntu ne leen bam leen waxee loolu mën a xam ngeen ne e, ba dafa feebaroon ba ni ser ne bu ko yàlla saafara ci feebar bi dina bàyyi lekk gim gën a bëgg te mooy yàpp gëlëm bàyyi bàyyi soowu gëlëm doo doo dootu lekk yàpp gëlëm dootu naan soow ma dootu naan meew ma ñu ne waaw mu ne loolu kon su fekkee da mu ne mu ne mu ne loolu moo waraloon yonent yàlla yaquba daal di tere boppam yàpp gëlëm tere boppam meew gëlëm mais yonent yàlla musta aaya yonent yàlla ibrahima musta ñàkk lekk yàpp gëlëm yaay yàlla itam musta tere pour ñu lekk yàpp gëlëm de loolu bokkul bokkul ci li ngeen wax te li waraloon xis eh, eh, eh, nizar googu nag yonent yàlla Ibrahima dafa wax woon ne mooy bi muy gàddaay jóge Égypte pour dem Beytu Maqdis muy Jérusalem mu ne bu ko yàlla wërsëgalee ba fukki doom fukki doom te mu dugg Beytu Maqdis di Jérusalem mu ne dina ci rey kenn jaamoo ko yàlla ngir jegee ko yàlla yàlla wërsëgal ko fukki doom ba doom yëpp màggee mu daal di jublu nag pour dem Beytu Maqdis mooy Jérusalem bi mu demee ba bëgg a jege baytu maqdis du Jérusalem ah benn be be eh, eh, eh, naka li ñu koy teeti ñi mel ni lu sànni sànni ko xeer aw doj mu daal di dajeeg malaaka ci melokaanu góor moo mu benn malaaka sànni ko mu gis benn waaye bu ko sànni xeer ndekete malaaka bi moo ko moo sànni xeer ba mu ko sànni xeer mu daal di dajeeg moom ci melokaanu góor ah waa ji ne ko yow Yaquba yow gis naa ne am nga kàttan te am nga doole te nda dama bëgg ñi bëree maag yow ndax d'accord nga pour ñu bëree maag yow mu ne ko aaca bismillah ñi bëree ñi daal di bëree bëree bëree kenn daanu sa morom bëree lu yàgg kenn kenn mën mënta daan sa morom ah malaaka nag daal di jël dara rek dóor ko ci lupp bi rek mu commencé nàcc muy nàcc rek dégg nga ci ci ci ci lu pom bi ba mu commencé nag ci nag feebar boobu na ci la ko sonalee nag ba mu duggee mayit Baytul Maqdis te fekk ngi ànd feebar gi ci lu métti loolu nag ba ba mujj benn guddi rek mu daal di nisar ne bu ko yàlla saafara ci feebar bi dina bàyyi yàpp gëlëm ak soowu gëlëm nga xam ne moom la gënoon a bëgg rek waaye bu e, e, e, loolu moo waraloon nisar ak Israaïl te Israaïl dëgg-dëgg mooy yoon ci àlla Yaqub ndax moom lañ doon woowee Israaïl de. waaye loolu musul nekk ci diine Ibrahima loolu ngeen koy sosal Ibrahima rek waaye Ibrahima musul def loolu de pour ne kullu taxaami bépp ñam kaana nekkoon na mu xillan muy mbir muy aji dagan dagana li bani Israayila ñeel bani Israayila de ñam yëpp li yàlla daganal ci ñam yëpp nga xam ne moom la daganal ci islam moom la daganal ci diine ju wér gi nga xam ne moom la Moussa nekkoon ak Esa ak yonent yàlla Yaquba mooy yàpp daga yàpp gëlëm ci ñoom soow ma dagana ci ñoom ak lépp lu leen daganal illaa ma xarama ndara la xaraamal na ko israil israil te mooy yonent yàlla Yaquba de ala nafsihi ci boppam li nga xam ne nag yonent yàlla Yaquba nag moo ko xaraamal boppam ngir bàyyi ko rek ngir yàlla te itam bàyyi gi buur bu ko bàyyee du ko lor ndax dina seet nuñ koy dina yàlla dina kàttane ba seet nuñ koy bàyyee ba du ko lor waaye lool bokkul ci téere ba bokkul ci tawraat de min qablu seen njëkk ant nazila ba wàcceef tawraatu tawraat lool yonent yàlla yàqu ba muy bàyyi nag lekk yàpp yàpp gëlëm beeg naan soow gëlëm bi boobu tawraat wàcce gudde mu ne xul waxal su fekkee ne li ngeen wax ne loolu eh, eh, yonent yàlla yàqu ba ba ba bi koy bàyyi tawraat wàcc na xul waxal Muhammad faatu dikkee leen bi tawraatin ci tawraat su fekkee li ngeen wax ne dëgg la yéen ngeeneen mbir mi mu ci tawraat di leen tawraat rek ñi leerlu ñu xool ku wax dëgg rek ngeen jàng ko ñi dégg fatluhaa ñu jàng ko in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina mbir mi yooyu ngeen di day dëggal su fekkee li ngeen wax dëgg la indi leen tawraat rek ñu xool de ah ñi daal di dëgg ñi daal di dëddu ñi xam ne li ñuy wax ñoom nekkuñ ci dëgg rek buur ne fa man iftara ku duutal na mu ku fental na mu alallahi waral yàlla kësi banaay nar képp ku fenal yàlla nag min baadi zalika gannaaw ak leer ak gannaaw ak li nga xam ne yàlla leeral na ko te li nga xam ne moom la yonent yàlla ibrahima a yonent yàlla yaquba tere boppam te mooy ñàkk ñàkk lekk yàpp gëlëm te yàlla terewoo ko ko ñàkk naan soowu gëlëm te yàlla terewoo ko ko su fekkee ne loolu ngeen bëgg duutal yàlla nag fenal yàlla moo ko ko aaye nga ne yonent Yàlla Ibrahima du ko daan lekk te ngeen xam ngeen na xel lu ngeen wax du dëgg su boobaa bu ngeen waxee loolu fa wulaay ko ñooñu la gaay hum ñoom azaalimuuna mooy ñoo di wayaay tooñ ne ñoo ñooy tooñkat yi dëgg de ul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam saddaqallaahu dëggal na yàlla ci mboole mi nga xam ne xibaar na la ko pour mu leer pour mu leer sa bopp rek nga xam ne ñii di wax ni eh, yahudi mooy ahlu kitaab yow di ñi daggee dàggee nii ah, la xam nañ na ñoom li ñuy wax ñoom nekkuñ ci dëgg de seen bopp rek lay nekk fa tabiu toppal millata ibrahima yooni ibrahima de xanifan mbir mi aji jeng walis diine yàqu yi toppal li yonent yàlla ibrahima mi nga xam ne mooy xutbu tawxid nga xam ne moom wéetal yàlla rek ak kennal yàlla rek la daan woote de mu sa topp diine yàq yi de dafa jengoon bàyyi yëpp topp diine yàlla rek te di diine lislaam de wa maa kaana nekkutoon moom ibrahima minal mushrikiina di bokk ci way bokkaale yàlla de yàlla eh, yonent yàlla ibrahima nag musta bokk ci nga xam ne dañuy bokkaale yàlla de mustee bokk rek yàllaa ngi wax fii mu ne yonent yàlla yàquba moom moo tere boppam yàpp gëlem tere boppam itam soowu gëlem yonent yàlla yàquba moo ko tere boppam te loolu mooy jaamu loolu mooy jaamu nit ki nga xam ne jaamu yàlla bi nga xam ne moo jël bakkanam ne bàyyi na nangam loo xam ne yàllaa ko ko daganal mu bàyyi ko ngir yàlla ngir toppee ko yàlla ndax dafa di ko yàlla saafara ci feebar bi dina ko bàyyi ngir yàlla loolu mooy soobu topp yoonu yàlla rek nekkal yàlla rek ndax lekk ak naan waxoon nañ ko ci dar si paase nekk ak naan baax na lool waaye boo toppee lekk ak naan nag ak lekk yi neexi ak topp sa yi te zuy na dinaa soxbu shahawaat yi nga topp ko ba fàtte la ba mu fàtte loola yàlla wala wala mu fàtte loola nga soobu ci yoonu yàlla xeex ak sa bakkan bi mu ne su fekkee ne nag fexe nga ba góorlu ci loolu su boobaa yow noonu tono di nga am tono goo xam ne benn tono du ko gën a màgg benn tono itam du ko gën a rey moo tax yonent yàlla Yaquba ci la ñu bàyyi li gën a neex si iñaa li mu gënoon a bëgg te mooy yàpp gëlëm ak soo gëlëm mu bàyyi ko rek ngir soobu ci yoonu yàlla ak topp yàlla rek nekkal ci yàlla rek te loolu bi xew nag boobu tawraat wàccagul injil wàccagul de moo tax seen seen nar yooyu nga xam ne dañ koo nar boole ko ci tawraat te bokk ci ñu foog na diine la te fekk loolu yonente yàlla yàqub rek moo ko ni boppam ndax nit ki naa bëgg booba naa damay bàyyi nangam ngir yàlla dinaa def nàngam ngir yàlla dinaa topp ni nangam ngir yàlla su fekkee ne nag loolu nag moom moo ko def loolu décision boppam la rek du diine de moo tax mu ne fa man iftaraaku duutal na ma alallahi waral yàlla kasiban ay nar min baadi zalika ci gannaaw lii nga xam ne yonent yàlla yàqub moo ko tere woon boppam foofu laay ko ñooñu la gaay hum ñoom azalimuuna ñoom na ñooto seen bopp de qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sadaqa dëggal de yàlla Ah, fattabiu yàlla dëggal na ñuy xibaar yi nga xam ne moom moo la koy nettali ba mu leer sa bopp nga mën a dàgge gi ñuy dàggeeg yow nga mën leen a leeral lan loo xam ne moom xam nañ ne dëgg la waaye ñoom ñoo soppi wax ji rek kon nag fattabiu toppal yooyu yonent bi millata ibra wala yéen millata ibrahima yoonu ibrahim xanifan mbir mi aji jeng walis dinay yàq yëpp moom ibrahima nga xam ne moo nekkoon xutbu tawxid nga xam ne dafa toppoon yàlla rek wéetal yàlla rek kennal yàlla ak itam képp ko topp yàlla rek mu dimbala la jubala ci yoon boobu noonu jaarale ci yoon boobu ba nga mën a topp yàlla rek ci ndigalal yàlla de wa maa kaanate nekkutoon moom ibrahima minal musrikiin di bokkoon ci way bokkaalee de doomi aadama nag moom la ñuy wax aalamul akbar mooy euh, aalam bi gën a màgg yàlla dafa bind lim bind yëpp mboolem lim bind ci bindam ci ay mbindeefam daf xaaj ñi xaaj bi nuraani la niki malaaka yi seen ak dund ñoom duñ lekk duñ naan duñ def dara topp yàlla rek loolu mooy lan laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruuna mooy duñ may yàlla su leen yàlla digal te itam dañuy topp li leen yàlla digal ak ñu nekk ca de ñoom malaaka yi ñeneen ñi mooy jismaani yi nga xam ne ay jëmm lañ rek ni ki jur geeg ak ñeenteenti yeeg njaaxaal yeeg demee ñu demee noonu ñooñu moom daanaka seen dund gi ñoom yàlla daf le a bind rek pour ñuy lekk ak naan ak sëy moo tax sëy tekkeewut ci dara kaawut ñetteeli xaaj ba nag mooy doomi aadama doomi aadama nag moom lañ dëxëñ ci moom melokaani malaaka ak melokaani jë jëmmi jëm jë jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi xaywaan yi de ndax moo loolu moo tax nag doomi aadama dina nekk di topp yàlla di jaamu yàlla di tudd yàlla di wéetal yàlla di jéem a baax di jéem a góorgóorlu topp jub ba dem ba raw malaaka yi seen maqaama di de seeni daraja rek te loolu mën naa nekk léeg-léeg itam da nga gis nit koo xam ne dina dina dina dina dina dina topp nafsoom topp bakkanam te ku nekk ak naan ak say caaxaan ak dund gu neex ba fàtte yàlla su boobaa nag mu gën a xiis ci mala yi dem mu mel ni mala yi te mala yi sax ñoo koy gën su boobaa su loola boobaa nag nu laa ruqaan wax in hum illa kal an'aami bal hum abdal ñoom daal dañoo mel ni ku may juri kër rek te ñoom ñoom sax dañoo réer ñooñ la wax itam wulaayka hum charrun bariyati mooy ñooñu ñooy de fii gën a bon su fekkee dafa dem nag ba toll foofu te lay nekk rek yàlla jox ko euh, melokaani mala yi rek ci xeetu fàddante ge xeex histoire tàngu xol bon soxor xeet yooyu yëpp daal di dajaloo ci moom su fekkee ne xeex naa ba kanam nag ba ba dañ ci moom ca lay fe ca yàlla nag nekk yàlla ba de ba ba ba mel ni malaaka yi sax wala mu raw malaaka su boobaa nag taxaw ci maqaama wulaayka hum xayrul bariyati ci lay ci lay ci lay taxaw ci loolu de moo tax bi alquran di wax mu ne fa zalimu fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtadis muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraat ki ñi nga xam ne nag dañoo tooñ seen bakkan yi mooy ñi nga xam ne dañoo topp seen bànneexu bakkan rek ba dee ci melokaanik juri kër yi nga xam ne lekk naan sëy rek ci loolu lañ nekk mooy in hum illa kal alaami ban hum addal ñoon ñooy charul bariyat mooy mi def yi gën a boot rek dégg nga wala ñi nekk wa minhum muqtasidun ñi nga xam ne dañoo topp te ñi nekk ñe léeg-léeg ñu jaxase nekk ci lu baax nekk ci lu bon léeg-léeg ñu jaamu yàlla léeg-léeg ñu topp seen bànneexu bakkan su fekkee ne nag euh, tuub dañ yàlla mën a leen a baal bañ mën a toll ci euh, jaamu yàlla topp yàlla wéete yàlla ba mel ni malaaka yi de su boobaa nag ca la ñuy sóobu nag nekk ci ulaay ko hum bari bariyati te sóobu dëgg-dëgg moo xeexal sa bakkan bi rek tere sa bakkan bi mboolem xeetu bànneex yi waa nag nga daal di topp dag yoonu yonente Yàlla Ibrahima loolu moo tax buur ne mu ne yàlla dëggal na ci li nga xam ne moom moom la wax de waa nag ca ngay nag ci man kaana lillaahi kaana allaahu lahu su fekkee nag nekk nga nag ku nekkal yàlla yàlla nekkal la soo nekkalee yàlla sa lépp ngay jël rek booyee ko ci yàlla rek sa bopp sa njaboot sa alal sa lépp dara lépp ci yàlla da nga koy booyal de waaye nag li gën a bon nag mooy nga yaakaar ne yaa ngi nekk yàlla fekk nekkaloo yàlla sa bopp rek nga nekk te loolu jàngoon nañ ko de barki démb mu ne kon qul sadaqallahu qul waxal sadaqallahu na yàlla fattabihu toppal millata ibrahima yoone ibrahima hanifan mbir mu yaji jeng walis dinay yàqi wa ma kaana nekkutoon moom ibrahima minal mushrikina di bokk way bokkaale ñi musta nekk musta ne bokkaale kat yàlla la de inna awalal bayti wudi alinnaasi loolu lu ko wasal wàcc na ci yahudi ndax dañ doon wax ñi ne xiblatuna xabla ko suñu xibla gi moo moo jiitu seen xibla gi loolu ñu ci namm ñu ne baytu maqdis moo fi jiine moo fi jiitu kaaba gi te fekk waxuñ dëgg de buur ne inna awala njëkk a njëlbeen ak néeg wudiat boo xam ne teg nañ ko pour jaabukaay yàlla liñ naas ñeel nit ñi ci ci kaw suuf ci biir suuf lalladi na ma eh, la laala bi bakkatin aji nekk la ci bakkata mooy màkk de bakka nag am na ñu wax naan ay bu kaaw ci bu la jóge waaye waxuñ dëkk loolu moom ñàkk dégg araab rek la bakka <coughs> barab la boo xam ne mu ngi nekk ci biir kaaba gi wala ci biir màkka loolu lañ wax bakka danañ ko firee màkka ndax léeg-léeg arab dinay def ci luxal arabiya ñi jàng arab xam nañ ko boo boo ngeen gëstu téere arab yi ci luxal arab yi dañ ko ci fekk da gis léeg-léeg ñi soppi mim bi def fa baa léeg nga gis ñi soppi euh, euh, barab euh, yenn baat yi def ba yeneen baat ca terewul baat boobu la ñuy firi rek léeg-léeg leneen di firi de loolu mën naa nekk ci arab waaye bakka daal ñu ne barab la pak pak barab la boo xam ne ba ngi nekk ci ci ci biir kaaba gi de ñu jagleel ko ko te te loolu moo tax ñu tuddee ko bakka bakka itam danañ ko tuddee dana dina nekk makka rek mooy la nekk ci ci suuf ci suuf bi ci suufi kaaba gi de mu ne ndax néeg njëkk muy nekk néeg dëkk la ba mu nekkee néeg la loolu moo tax barab bi moo tax moo tax ñu tuddee ko bakka néeg bi rek mooy bakkare néeg bi mooy bakka màkka nag moom mooy dëkk bi lépp lu wër màkka nag ak ak ak li wër màkka yëpp de ba gi nag moom la yàlla di leeral fii mu ne ne kaaba gi moo jiitu baytul maqdis te jiitoon na ko ci at yu bari ndax kaaba gi jiitu na aadama ci ñaari at ci ñaari junneyaat ñaari junneyaat la jiitoo ci yàlla aadama njëkk aadama di wàcc ci kaw suuf te itam ñu ngi ko teg fi gën a sori ñoo ko tegoon fii gën a sori eh, eh, fondement am pour bu bis bu aadama ñëwee mu mën ko fee fekk rek aadama nag mu aj na kaaba gi ñeent fukki yoon te loolu lu weer la de bañ ko laajee yonent bi nag ñu ne mu fekkee aj na ko ñeent fukki yoon ba mu daan aji lu mu daan war mu ne aadama ndax aadama mu ne aadama dara attanu ko da daan dox rek da dox jugee Inde di doxee Inde ba ba Makka aj Makka su ba pare delluwaat Inde dem ñu bëre kaaba gi nag tabax nañ ko fukki yoon ñi ko njëkk tabax malaaka yi tabax nañ ko njëkk aadama ci ñaari junneyaat aadama tabax nañ ko ci la commencé di wër kaaba gi di ko aj gannaaw aadama gannaaw tabax na ko aj fa ñeent fukki ñeent fukki yoon muy ñeent fukki at dégg nga ginnaaw ginnaaw gannaaw lool nag da ko yàlla digal mu tabax Baytul Maqdis te loolu nekk na ci diggante bi ñeent fukkiyaat gannaaw bi aadama tabaxee kaaba gi bi mu tabaxee kaaba gi ba bu commencé ko ak ak bi mu tabaxee baytul maqdis seen diggante toll na ci ñeent fukki at ma kon kaaba gi malaaka yee ko tabax kon kaaba gi fi jiitu baytul maqdis mu Jérusalem malaaka euh, malaaka yi ñoo ko a tabax aadama tabax na ko siisu mi caatu aadama tabax na ko euh, tabax na ko mooy ba ko Ismaayil jàppale tabax mi dégg nga te yàlla digal ko pour mu woote oote mi nga xam ne képp ku uyu woon ci oote ga soo wootee benn yoon di aj benn yoon soo woote woon ay lim itam di nga aj lim yi tokku rek Ibrahima moomu tabax na ko ah eh, amaali xattu yi tabax nañ ko juróomi yoon yi tabax nañ ko Quraysh tabax na ko Qusay ibnu Kilaab muy maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabax na ko. Quraysh nag bi mu koy tabax yonentu fekkee na ko bokkoon na ci tabax ma de Abdullah ibnu Zubayr tabax na ko Hajjaaj ibnu Yusuf itam itam moom it tabax na ko tabax boobu nekk fi mooy tabax bi bii nekk fi nii mooy tabax bi nga xam ne moom la fi Hajjaaj ibnu Yusuf bàyyi woon de kon Kaaba gee fi jiitu Bayt Maqdis lu yàgg Bayt Maqdis gannaaw eh, eh, gannaaw gi la ko tabax de mu ne euh, euh, mubaarakan mu di wuñ barkeel néeg bu barke la ndax kaaba gi moom mu ngi jàkkaarloog béytu maamuur béytu maamuur mooy bi nga ne moom la malaaka yi di wër te béytu maamuur ak kaaba gi daanaka dara doxul seen diggante loolu moo tax benn picc du fa nekk di wër de picc bu fay wër daa fekk mu feebar mu fay euh, di wër kaaba gi bu ko defee mu kenn benn picc du naaw tiim kaaba gi lu dul picc bu feebar rek ñëw pour faju si la muy la muy nag loolu moom yàlla rek koo xam waaye bu ngeen gisee picc yi naaw tiim kaaba gi rek xamal na daa dafa feebar pour faju si rek de waxu dan aji nekk la ñe ñe ñe eh, di waxu dan tamuy njub lil aalam de nekk mu nekk seede xibla ngi topp kaaba googu jublu kaaba googu noonu de nga xam ne penkook xarfoog ndeyjoor ak càbbo ñëpp ñu ngi jublu kaaba gi nga xam ne ñii buñ jullee tàkkusaan tey ñee ñi ngay julli timis ñii buñ jullee gee ñee ñi ngay julli suba ñii buñ jullee suba ñee itam ñi ngay julli ci subaar de ñoo demet ba mu jeex ñooñu nag ci mboolem àddina bi ci penkook xarfoog mboolem jullit ñëpp fu ñu mën nekk ci àddina bi noonu la ñuy wëree kaaba gi di jub jub di ci kaaba gi de ànd ak itam ñu nekk di wër kaaba ga ma kere mu ne fii aji nekk la ci loolu li wax noonu ayatum ba bayyinaati mbir muy aji leer eh, eh, liñ lay wax noonu nag kéemtaan am na ci de te mooy lan mooy maqaam Ibrahima maqaam Ibrahima mooy barab bi nga xam ne ci la yonente Yàlla Ibrahima daan taxaw bi mu daan tabax kaaba gi te barab eh, doj boobu mu daan taxaw noonu boo ngeen demee jeexitali tànkam ñaari tànkam yi ñaari ndoggam di ngeen ko fa fekk rek Euh, léegi nañ ko nëbb rek pour bañ nit ñi topp ko naan ay xuraafaat la ñooñu ndax barkeelu gi ñu fi barkeelu waaye bu ngeen demee ba su su ngeen bu ngeen gëstoo ba ba da ngeen gis ñaari tànk ñaari tànk yi Ibrahima yi yonente Ibrahima marqué ca maqaam maqaama bi daan taxaw de mu ne man daqalaw ko dugg na mu foofu nag daana mu daal di nekk aminan mu nekk kuñ wóolu de ku yàlla dimbale nag ba nga dem aji màkka nag ba nga taxaw ci maqaam Ibrahima wala ba nga dugg Màkka su waa da nga nekk nit ku ñu wóolu de su fekkee ne da ngaa rayoon nit wala nga tooñ fa ki nga ko soo rayoon nit sax ka nga ka nga rey mbokkam nga dajee faak moom kook sañu laa def dara soo fa tooñee ni itam ngeen dajee foofa kooku itam sañu laa def de bi de maanaam sañ ta sañ ta def dara de te loolu mooy barke bi ko yàlla jox rek te barke googu mooy béréb mbalaan yi nga xam ne ñi ñaa ngi koy sol de mooy ñi nga ne mbalaan mi nga xam ne moom la ñu xottee ñëpp bokk ndiroo ñëpp bokk yemoo doo xamee kii buur lan kii baadoolo kii nangam kenn du fa xëccoo ken du fa xuloo loolu moo tax xaddis ba waa ne man xajja walam yarfus walam yafsuq rajaa min zunubi ka yawmi waladatu ummu képp koo xam ne aj neta xuloowut dàggeewut fasiqut su boobaa dina dellu bakkaaram mu set mu mel ni bés comme bés ba mu juddoo nga xam ne mu jëdd daa dafa dafa set wecc de mu ne képp ku aj benn yoon jox nga sa farata ku aj ñaari yoon jaayante ak sa borom leblantaa nga ak sa borom te waxoon nañ ne nga kuy leble boo ku leblanteeg yàlla moom yàlla dina la fay-fay gu mat ku aj ñetti yoon karawam ak yaramam araam na safara kon mbir maa ngoo kon ko yàlla wërsëgal nga aj ko ay ñeenu yoon nag loolu fekk aj gi yàlla nangu ko kon santal yàlla de nga xam ne sa yaram araam na safara te jaayante nga ak sa borom te jox ko safara te de kaaba gi nag mboolem yonentu yàlla yi aj nañ ko mboolem ko yàlla mosu yónni ci kaw suuf rek aj nañ ko lu dul ñeent ñii lu ko daggee ci aadama aj na ko aadama moo ko njëkk a aj ba ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeent ñii rek ñoo ajul màkka mooy ñen yonentu yàlla Huud ak Saalixu ak Luut ak Idris ñeent ñi muy Huud ak Saalix ak Luut ak Idris ajul Màkka waaye bu fekkee ñu dul ñoom nag ci yonent yu ñoom ñëpp aj nañ njéegam yàlla wi ndax dafa dem ba nga xam ne sax euh, euh, euh, ñoom ñëpp ci ci loolu lañ jaar topp seen yooni baay Aadama de moo tax kaaba gi an e, yonent yi ak saalixiina yi ñi si njëlbeen ak jamono ba ci suñ waxtu bi ñëpp a war de ñëpp a ngi sàkku barke bi de loolu moo tax ya eh, yàlla mu ne mënaloo ko loolu mooy néegam yàlla ndax ndax du du du na da ngay dem rek fekk ko fa waaye eh, mooy néeg bi nga xam ne moom la fa moom la tabaxal jaamam yi wàccee ko jaamam yi pour ñu koy fuugloo pour di di di fàttali ko seen borom de malaaka yi nag biñ tabaxee ma eh, ki na kaaba gi ñu indee jëlee xajarul aswad ca aljanna fekk xajarul aswad nag bi muy ñëw ci kaw suuf ci ñëw ci kaaba gi dafa weexoon tàll comme comme urus bu ba bu weex moo gënoon a weex sax soow mu weex tàll waaye li ko ñuulal nag ñu ne bàkkaari xuraysh yi ak ñi nga xam ne buñ demee ak julli ak ñi nga xam ne itam buñ tuubee dem ca kaaba gi laal seen kii yi bàkkaar yooyu ñu doon def moo moo mooy moo tax ci xajarul aswad bi moo tax mu dem ba doj bu ñuul waaye doj bi ba muy wàcc dafa weexoon tàll de ndax doj boobu yàlla dafa wax ne mu ne mooy ndeyjoor ak yàlla ci kaw suuf képp ku ko laal rek saafante nga ak moom nuyu nga ko jox nga ko loxo loolu boo tax de ba nga xamee ne moo moo wax naa ne Adama tabax na Kaaba gi Siisa tabax na ko do muy caat Adama Ibrahima tabax na ko muy ñeenteel ba ba ba tabax la ñeenteel bi nag ci la ci la ci la ci la ci la ci la yàlla. digal Ibrahima mu taxaw ci kaw maqa maqaama boobu de ci xaddiral boobu de nga xam ne mu ngi tollool ci ñetti mètre ci suuf te kaaba gi mu ngi guddoon ci fanweeri mètre Ibrahima fa muy taxaw gàtt na lool la muy tabax itam gudd na lool Ibrahima fa la doon taxaw di tabax kaaba kaaba gi eh, ki nga xam ne nag moo nekkoon ingénier bi ko doon dibal tabax bi ni mu war a nel mel mooy Jibril de te la ko Ibrahima tabaxee nag ànd ak doomam mu dimbale ko Ismaayil ak mikail mikail te moo doon dimbale ismail ñoom ñëpp luñ soxla ci ay doj ak i la tabaxee ñoo ñoo doon ñoo leen ñoo leen jàppale yonent ba tabax bi di mat de moo tax bu ngeen demee Màkka saw saw saw rek ñoo nëpp tànk yonent Yàlla Ibrahima ci xaj ci ci ci maqaamu ci xajaru ci ci doon taxaw ci maqaamu googu fam doon taxaw noonu fam doon taxaw na bu ngeen demee njeexitali tànkam yi ma ngi fa ba léegi dañu fa de gars yi dañ koo nëbbu rek ndax ñoom fu ne nii foog nañ la lépp lu ñuy def rek pour euh, barkeelu ci la dañoo foog ne bokkul ci diina de yonent yàlla Ibrahima nag bi mu tabaxee Kaaba gi ñoom ñëpp yàlla digal ko mu woote mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne borom bi mu ne waa man nu may wootee ndax ñi nga xam ne su may woote ñen laay woot ñi fi nekk bëriwul te ñu ñu may oote ñu si bari ñu ngi seen digg ak bàyyi yàlla na ko xoote rek soo wootee képp ku dégg oote bi su boobaa dana wu ida bu wuyoo dana bokk ca ñaar ji de oote ba yonent Yàlla Ibrahima ootee nag ne ee yéen ee yéen nit ñi ñoom daal di ootee ku uyu woon benn yoon di benn yoon woon ñaari yoon di nga aj yoon yoon yoon yoon aj aj yu bëri de su fekkee nag mosoo uyu nag ak loo mën di am ci alal loo mën di am ci kàttan ak lu la yàlla mën di wërsëgal itam du du tax nga dem aji màkka rek moo tax koo gis ajiwul màkk rek bul bul bul bul ko ŋaañi yàllaa ko boole wut ca wuyu ma de su fekkee ne yàlla boole na ko ci wuyu ma am lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg su fekkee ne bokkoon na ca ñu wuyu lu mu yàgg yàgg naa ji ñeegam yàlla bi de mu ne walilaaye aji nekk la ñeel yàlla waral yàlla ala naasi ci nit ñi xajjul bayti xaj néegam bi yàlla moo waral nit ñi pour ñu xaj néegam bi de man istataa àttan na mu ilay sabilan eh, ilay jëm ci moom sabilan benn yoon de mooy faratare yàlla nag moo farataal nit ñi pour ci bu moo ci kaw nit ñi yaaj néegam ba de te eh, eh, képp ku ko attan ko attan nga xam ne attan ko mooy sa lépp daje am nga nga wér am nga yóbbal am loo bàyyi sa ginnaaw itam eh, nga xam ne noonu la ko fuqaa yi tënkee ak yeneen yi demee noonu ak bokk bokk te yàlla boole la ca ca ca ñë wuyu woon su boobaa nag su boobaa yow aj la de boo ko mënee def ko booko ko mënul nag nga bés bu la ko yàlla mën looyee ta nga bor bokk bokk ca rek mu ne wa man kafara ku wedd na mu a te mooy bañ kufru gi bañ lay firi waaye du wedd ak weddi yàlla mooy mën nga waaye da bañ danga ngaa bañ mu ne fay na allah nekk yàlla xan ne yoon aju day lun amu anil aalamiina walis mindee fami de mu fekkee ne da bañ aji nag bul foog ne yow boo aji war a keneen du aj kaaba de yàlla doyloo la ñeneen ni doylu na la walis ñeneen ñi de su boobaa boo ko ajura am na ñeneen ñu koy aj de mu ne nag koo xam ne nag dëddu na kaaba gi te fe eh, dëddu na kaaba gi te fekk feebarut ñàkkul de dara jotu ko tamu dëddu kaaba gi mu ne kooku moom da bañ rek dafa bañ rek de qul yaa ahlal kitaabi qul waxal yaa ahlal kitaabi ñooy ñëwee ñëwee téere te bay yow dag ne saaraan li ana eh, li ma takfuroo eh, ci lan ngeen weddi li ma takfuroo tax ngeen weddi bi ayaatillaahi ci kaw teefi yàlla te mooy alquraan lu tax ngeen weddi alquran wallaahu yàlla shahidun aji seede la mu ala ma taamaluuna te ngeen jëf te daneen ko fay de tax na ngeen weddi alquran te xam ngeen ne li alquran di dëgg la ndax li alquran di wax mooy la daanaka mooy mooy mooy mooy tawraat wax rek te yàlla xam ngeen li ngeen di jëf da ngeen seen bopp rek ngeen nekk xam na xam na li ngeen di jëf te dana leen ko fay ëllëg de xul waxal yow yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yaa alal kitaabi hey ñooñ ak téere te mooy yow da nasaaraan li ma ta sudduna lu tax ngeen di fekk nit ñi an sabilillahi waris di yàlla te mooy diin ak yàlla lu tax nag ngeen di fekk nit ñi buñ bëggee gëm yàlla rek ngeen fexe leen dumboo yoo leen leen ngeen eh, eh, dumboo leen maanaam nga dëdd seen kanam yi dëdd leen ci yoonu yàlla bu buñ ko topp te buxuunaha ngeen ñu weddi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek te buxuunaha ngi ngeen sàkkoo ko E wajan ak e, e yoon bu dëng pour ñu jéng rek walis topp yoonu dëgg rek wa antum te yéen shuhadaa way xam ngeen ne diine ji yàlla gërëm mooy diine lislaam de fekk yéen dëggal ngeen ne seede ngeen de diine ji yàlla gërëm mooy diine lislaam kon nag lu tax nag ngeen di fekk nit ñi pour ñu bañ a gëm yàlla rek de wama laahu déet buur bi xaafilin muy aji sàggan ci ñàkk a xam amma taamaluuna ca la ngeen jëf ko de yàlla nag doon sàgganut ca xam na bu baax li ngeen def ci weddi ngeen weddi ak fen eh, ak nar yi ngeen di nar ak itam bu ngeen yaakaar ne yéexe gi leen di yéexe rek ngeen foog ne xamul ci lu ngeen nekk rek xam na ko te leen fay lépp lu ngeen jëf de yaa ayyuha alladina amanu e yéen gaay gëm alquran tuttiixu dem topp ngeen fariqan kuré min alladina ca ñaaña wutu joxeef na leen alkitaaba téere tambo yow da nasaraan yuruddukum xal ñu eh, xal sa eh, ni delloo leen baax de imaanakum gannaaw gëm seen kaafiri na mbir muy ngeen way dee di yàlla de mu ngi wàcc ci eh, Ammar ibnu Yasir ak Xusayfata bun Yamaani dañ daan def di dem ci église làbbe yi yahudi di dem di dégglu tooraat pour xool luñ wax ci yonente bi pour ñu gën koo dëggalee seen gëm yàlla rek bés nag ñi dem foofu noonu njiital làbbe bi maanaam seen jiit làbbe bi muy wax ndekete mu ngi leen di bàyyi xel bés mu daal di leen propagande di leen woot ci seen diine ji mu ne mu ne ko ah gis naa ne yéen daal ñu jub ngeen ñu baax ngeen bu ñu bëgg yàlla ngeen ne ndax du ngeen ñëw ci ci ci ñu ngeen ñu topp yàlla ah amaat na ko seen diine lan la wax ci ko wuruj mu ne ko ku ko wuruj yàlla rëbb la ko rek mu ne kon nag man du ma wuruj de ndax dama dam da da gëm naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te topp naa ko fii dañ fee ñëwoon rek ngir eh, eh, eh, déglu tawraat lu mu wax si suñu yonentu rek ngir yokkee ko suñ gëm yàlla bañ koy yoxee yonentu bi yonentu bi leen ne bu leen demati foofu rek ndax bu ngeen demee bu yàggee dëkkandoor mën naa wàll bu yàggee mën na leen ma mën na leen a dem ba wàll leen seen jukka ji ngeen ba fa yàqula rek waa wa kayfa takfuruuna wa kayfa takfuruuna tax ngeen di weddi wa antum te yéen naka ngeen di weddee wa kayfa takfuruuna naka ngeen di weddee wa antum te yéen tutlaa way ayatullahi kawte fi yàlla yi te mooy tawraat wa fiikum aji nekk la ci yéen rasuluhu ak yonentam de leen leen lu tax ngeen di weddi noonu naka ngeen loo xam na xam ngeen ko te jàng ngeen téere bi jàng ngeen aay yi nga xam ne yàlla wàccee na ko te mu te yéen yàlla yónni nga ci yéen bu lu tax ngeen di weddi lool da naka ngeen di weddee lool mu ne wa man yaxtasim ku jàpp na mu billaahi ci yàlla ko képp ku ngoy ci buumam yàlla faqad jub faqad hudiya jubeeb na leen ilaa saraatin jëm ci yoon mustaqimin bu mu waay ji jub de bu fekkee nag su su nekk bu fekkee am am na ko jàpp nag képp ku jàpp ci buum ak yàlla nag ba topp ko xamal na yow yàlla jubal na la yoon bu jub de loolu moom loolu la yàlla waxu ñooma loolu la yàlla di wax ñoom am Ammaar ak Uzayfa ibn naka ngeen di weddee yàlla te yéen eh, jàng ngeen alquran te am ci yab yonent yàlla mu ngi seen yéen képp ku jàpp nag ci buum ak yàlla gi xamal ne yàlla jubal na la de yaa ayyuha alladina amanu yéen gaay gëm alquran ittaqullaha ragal leen yàlla xaqa tuqaatihi dëgg-dëgg ragal de ñu ne loolu nu muy mën a nekkee mu ne ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ñu ne loolu muy mën a nekkee mu ne ngeen topp yàlla rek bañ koo mooy kenn te ngeen koy sant rek bañ koo weddi te ngeen koy tudd rek bañ koo fàtte ñi yonentu ñu ne ñu ne yonentu ñu ne loolu mënuñ ko de ah yàlla daal di wax mu ne daal di waay ba ba mu daal di a beneen aaya mu ne fattaqullaha mastataatum ragal nañ yàlla seen kéem kàttan rek mu ne def leen ko comme ni ngeen ko mënee rek waaye dëgg-dëgg ragal nag moom ñu ne ñoom saxaaba yi ñu ne mënuñ ko xaat ni moo tax yàlla wàccee mu ne fattaqullaha ragal leen yàlla mastataatum seen kéem bu kàttan de ragal leen ko mënee rek de waaye nag wala tamutuuna waaye bu leen dee illaa wa antum dara yéen muslimuuna way wéetal ngeen seen borom de fexe leen daal balaa balaa dee di leen dikkal daal ngeen gëm yàlla topp yàlla rek waxta si mu ngëb leen jàpp leen bi xablillahi ci buum ak yàlla te mooy diine yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy lislaam jamian mboolem seen yéen mbooloom julli nii jàpp leen ci diine yàlla gi rek te ngoy ci bu baax de wala ta wala bu leen fasalante maanaam bu leen tàqalikoo gannaaw lislaam de bu leen ni jàpp leen rek ci diine yàlla gi te bu leen bu leen bu leen bu leen bu di di di di di di di di de bu leen tàqalikoo mukk waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal ak yàlla ki xam ne yàlla xéewaloo nañ leen ko aleykum ci yéen yéen mbooloo aw soqa zaj is ngeen nekke ataan di ay noon njëkk lislaam fa allafa tàppe boole bayna qulubikum si diggante xool send ci lislaam fa asbaxtum te ngeen mujj bi nexmati ci xewalam ci lislaam ixwaana ngeen di mbokk ci diine ak ci ak ci mbiram e, nguurante de wa kuntum te ngeen ala shafaahu ala ci paxum e, ci ci e, gasum pax minan naari ci safara bu taxutoon yonent bi daanaka duggee ngeen ci paxum safara moo xam ne dara mun leen cee génnee yonent rek moo leen dimbale ànd ak dimbale yàlla yàlla mooy leen jub ngeen jub ci munu fa anqazakum tawallu leen min ha tukkee loolu ngeen ne te mucc leen min ha ci loolu de ngeen ngeen mucc si loolu ànd ak gëm yàlla kon fàttaliku leen loolu de loolu mooy lan aaya bii ñu wax muy wàcc ci aw su awsu dafa awsu benn giir la woon xasra itam beneen giir la woon ñoom lañuy tuddee am ansaar ñoo nekkoon mu Munawar ñaari giir la woon yoo xam ne daanaka noonoo lañ di tolloog téeméeri at ak ñaar fukk téeméeri at ak ñaar fukk rek ñu noonoo ko nekk ci xeex bu dul jeex di xeex rek di raayante seen biir di ak lorante seen biir rek ba islaam dikkee nag ñi daje yonent bi sallallahu alayhi wa mais seen njëkkeen la dajee bañ ñëwee di ndax ndaka jëkk waxoon naa ne kaaba gi dañ ko yaaj ba ñëwee di aj kaaba gi ñi jaayanteek moom fekk juróom benn lañ ca aj ma at ma sa topp ñi ñëwati jaayantewaat ñi nekk fukk jaayante at ma nekk juróom ñaar fukk ak ñett muy ci mbooloo ak fukki jigéen ñi daldi dëggal nag seen ak jaayante googu ñee nag bu yonent bi di gàddaay bu mu gàddaay dem fenn na ñëw ci ñoom ne bu ñëwee ci ñoom dinañ ko dimbale dinañ ko jàppale ginnaaw bu yonent bi gàddaayee jëm Medina ñoom ñoom ñi daal di tuub nekk jullit kenn eh, eh, amul kenn ku nekk ci biir Medina eh, te bokk ci diggante aw sax xas rek te tuuboo nekk jullit ñoom ñëpp tuub nekk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee leen ansaar mooy ñu nga xam ne dañoo dañoo dimbale dina dimbali mooy ñi nga xam ne dañuy dimbale yàlla ndax Isa mu ne man ansaari ilallaahi qaalu xawaariyuun nahnu ansaarullaahi moo tax yonent tuddee leen ansaar yi nga xam ne ñooy dimbalaakoon yi e, naka jekk nag dëkk ñu ci bëri ñaari rek benn benn rek benn yeneen yonent yàlla Muhammad rek moo mos a ubbi dëkk te xarewu ca muy a Munawara boobu lu ko mooy yeneen dëkk yëpp da koo xare ak jaasi ba ubbi boobu ba islaaman faa dugg mu ne bam ko defee nag ñooñ eh, awsu xas rek ñoom ñëpp ñi daal di nekk lan saar mënoo too xàmmee awsu ñu ko nekk ci giir ak awsu mënoo too xàmmee itam ku nekk ci giir ak xas rek waaye nag yahud ya dëkkaale ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkool ak ñoom ñoom fàttewut seen noonoog ak démb léeg-léeg léeg-léeg nag ñu fàttali leen seen demb pour ñu meroo rek pour ñu xeexoo mu ne yéen xanaa fattaliku leen jamono ba ngeen nekk jamono jaahiliya ngeen di noonoo di rayante seen biir di bañante di toraxlante di ba di def lu bon mu ne nag tey nag ngeen da ngeen a yéen yoo yaay mbokk ngeen a ah, ba nga ko defee nag ñu commencé nag di bañ lenn si julli di xañaanee lenn di def yu bon yi ba bés nag ah, am benn mbooloo bu romb ñenn ci lansaari fekk ñoom ñoo ñu ngi toog mbokkoo di waxtaan ñu gis loolu rek ñi daal di eh, yahudi daal di def lu bon loolu rek fàttali leen seen démbo rek awsu daal di eh, benn mbooloo ci awsu ne leen yow de fàttali ko sa baay diw waa Xasra ko reyoon yow itam sa baay diw waa awsoo ko reyoon ñu fàttali ko luura fekk ñoom ñoomi neen ñi ngi toog ñoom awsoo Xasra ñu ne loolu de bu fekkoon na tey jii la su boobaa comme ni ñu rayee man dinaa rayee sama baay nanga wala sama mbokk nangam kon dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa leen ray rek man dinaa fayu dinaa leen fayu ca la guerre ba euh, ñu commencé waat nag seen xeexoo bi tey te yonent jubaloo na leen jubale na ne woon bu yàgg bañ duggee ci islam ba jàmm dellu siwaat yahud yi fexe ba jaxase waat leen ba seen histoire bi tàmbaliwaat ñu commencé di xuloo seen euh, aada ju bon nag dellu siwaat ñu commencé def lañ doon def di rayante génne ay jaasi waa xasri oo waa xasri waa osu oo waa xawsu ñi oo seen ñi génne seen ngàndaay commencé rayante yonentu daal di génn ànd ak muhaajiriin yi mu ne bàyyi leen seen ñi fi jaay lii xanaa xaraa fàttali ko woon leen li leen yàlla boole de ñu daal di sànni seen jaasa yi ñoom ñëpp ñu daal nangoo saafuwaate ci ndekete seytaane moo nekk si diggante rek te seytaane yi mooy yahud yi nga xam ne ñoo dëkkoon biir Medina na bëggoon a yàq mbir moomu rek aaya boobu ci la wàcc moo tax mu ne jàpp leen ci diin yàlla te bu leen tàqalikoo yéen waa awsa Xasraj te ngeen fàttaliku xéewal ak gi leen yàlla xéewal yéen mbooloom soo Xasraj bi ngeen nekkee di ay noon mu ngi jël seen xol yi tàppe leen ba ngeen nokki nekk di benn yéen ñëpp ngeen ànd nekkandoor di ay mbokk ba bay ba yàlla musal leen ba ngeen nekkee ci paxu pax boo xam ne safaraan ji yàlla musal leen ci ci gëm yàlla kazalika kem loolu yubayyinu llah kazalika kem loolu leeral googu mu leeral leen yu bayinu laaw lay leeral yàlla lakum ñeela ne ayaati ay kéemtaanam laal lakum ndaxte leen taxta duuna ngeen jub ba ragal yàlla rek niñ leen ko waxee nii nag noonu la yàlla di jubalee jaami ba ngeen mën a ba ngeen mën a ba ngeen mën a jub ba mën a topp yàlla de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim